UCAB FM. li gën a fës ci yéen kaay. Papa Saer Mbaye. mille coowal rapport cour des comptes ba fi mu toll ni pënd ba wuréegul yénn kaay yu bëri ña nga ca xëy di nettali woote bi nga xam ne kon Amadou Ba Ilmaana Dior ñu woote na ko Le Soleil yénn xëy di xamal ne premier ministre Amadou Ba moom naka woote na ni ki ci talaata ji mbooleem ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di société civile ngir ñu waxtaan waxtaan wu yaatu woo xam ne kon dañoo bëgg a leeral lu jëm ci wàllu ko rapport cour des bi ak anam bi nga xam ne kon moom la ñu yore woon junni milliards yi nga xam ne kon moom lañ doon xeexa mbas waaye itam ci askan yi njiital gouvernement bi moom naka teg na ay jéegu yoo xam ne kon ak waxtaan wu yaatu woo xam ne kon wu dëggu wu wér woo xam ne kon du ko fas yéene séq ak ñi nga xam ne kon ñoo di askan wi ngi rek lu jëm ci wàllu kër lii di moomeel ak askan wi nana lañu ko yore woon loolee lañu bëgg a waxtaane bés bi le jour moom xëy di nettali dalal xel gi nga xam ne kon Amadou Ba ma ngi koy dalal xel ñii di waa société civile ci woote bi nga xam ne kon woo na leen ko yéenekaay bi xëy di xamal rek ni ci ndaje mu doxoon na ci diggante ilimaane jëriñ ji di Amadou Ba ak ñi jiite société civile loole nag mi ngi jeexal ni nga ci ngoon ci dogu boo xam ne kon na ko ngir rek lépp loo xam ne kon jëm na ci wàll wi ñu mën koo leeral teg ko ci yoon ci li nga xam ne kon rapport bi cour des cour de compte jot nañu ko ci ak génne ci wàllu ko xaalisu mbas mi doon junni milliards yi yéenekaay bi di xam le rek ne ay weccoo xalaat yoo xam ne kon dox na ci diggante ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di gouvernement bi rawatina Ismaïla Madior Fall ak ki nga xam ne kon moom a di Elimane Kane mi jiite ONG lect wala encore leneen loo xam ne kon jëm na ci wàll wi yéenekaay bi xëy di xamal ne bokk na ci leneen loo xam ne kon waxtaan wopp xumboon na lool mu jëm ci wàll kii di Papa Alé Niang mi nga xam ne kon taskatu xibaar la bu jàpp nañu ko ca yéen bi xëy di xamal rek ne kii di Alioune Tine ak ay ñoñam waxate nañu ca lañu bëgg rek mooy Papa Alé Niang moom nañu ko teggi loxo balaa eh, réccu di am ci mbiram yéen bi ba tey di xamle rek ne fi mu toll nii kay lu jëm ci wàllu ko coowal rapport Cour des comptes bi eh, fi mu toll nii kay la dëgg mooy ñu xam kenn ku ci nekk noo ca taq enquête yéen kaay mooy xëy eh, samp laaj ba xëy naka def ca gëstu niki démb ginnaaw bi ñu pare ci waxtaan boobu doon na ko ca am ci diggante société civile ak kii di kilifa nguur gi yéen kaay bi moo xëy di xamal rek ne lu jëm ci wàllu rapport bi ñu doon waxtaan doon rapport cour des comptes bi chef du gouvernement doon rek ki jiite gouvernement bi doon Amadou Ba moom nag mi ngi wax rek ne fi mu toll li di nettali lu ci bëri loo xam ne kon lu loo xam ne kon manipulation daanaka rek yu wax nit loo xam ne kon dara wéru ca bëri na ci loo xam ne kon am na ci li nga xam ne kon moom moo di wàllu ko rapport boobu la yéen bi xëy di xam xamal rek li nga xam ne kon mooy jëm ci wàllu woowule ñoom ne kon ñoom ñoo di nguur gi dàquñu ba koo xam ne rek tudd na li ci ñu topp la ci li wàllu yoon ngir ñu mën a leeral yi ba tey yéenekaay bi di xam le ne Ba moom nag fi mu toll nii nee na lu jëm ci wàllu ko du mbir mi danañ ko luñ batu ci wàllu ko yoon muy ouverture information judiciaire boo xam ne kon danañ ko topp enquête ñu koy nettali yéenekaay bii di Le Quotidien info moom nag ba tey ma nga ca ilimaane joni ji Amadou Ba ma nga ca rek taxawaay bi nga xam ne kon taxaw na ko ca ne nag fi mu toll ni song yi nga xam ne kon songoon nañ ko jamono ji ma ngay fas yi ne kon jotoon nañ koo jëmale ci moom yéen kaay bi di xam la rek ne fi mu toll nii ñi nga xam ne kon ñoo di waa société civile ak ko ñoom ci ay yaa ngay wax fii nga xam kon moom mooy taxawaay yéenekaay bi di xam le rek ne jamono ji lu jëm ci wàllu ko gouvernement beeg nguur gi nañuy doxal lañu bëgg rek lépp ñu leeral ko Ba fi mu kay yéenekaay bi Sud Quotidien ne daanaka kay mën nañoo wax ne dañu koo taxawal ca kanamu àtte àttekat bi ngir rek ñu mën a leeral yéenekaay bi xam ne kon jëm na ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne kon moom la taxaw loolu ñu bëgg rek mu leeral ko dem ci pencum ndaw réew ma ngir waxtaan ak askan wi ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg xaalisu mbas mi nga xam ne kon junni milliard la ci nguur gi dugal fan lañ ko dugal dëgg-dëgg lu ne lan lañ ca def ak leen lu ci ne fan la dërëm ba jaar topp ko benn benn ba ñu mën koo leeral askan wi yéenekaay bi xëy di xamal rek ne loole mooy bëgg bëggu ñaari député yi di Guy Marius Sagna ak Aminata Touré yéenekaay bi xëy di xamal rek ne loole ab question d'actualité la nu ko tuddee yóbbu ko ca pencum moom Amadou Ba mu nga ca biir li nga xam ne moo di yéeni kaay waxtaan wu doon ko seq société civile yéeni kaay bi di xam doon nañ ko ca amal la nu mooy ñu mën a leeral mbir mi l'observateur yéeni kaay moom ba tey ma nga ca wàllu waxtaan woowee nga xam ne kon doxoon na ci diggante nguur gi ak société civile rapport cour des comptes bi yéeni di xamal rek ne lii mooy génn bu njëkk boo xam ne kon gouvernement bi ci lu officiel jot nañu ko caa génn ngir mën a waxtaan ak ñii di waa société civile yi nga xam ne ñu leeraleen yéen ni kaay bi xëy di xamal ne nii ah, kii di Amadou Ba dose bi nga xam ne kon jox na ko ñii di waa société civile ngir rek man leen a dalloo ba tey témoin quotidien ne kay jamono ji moom kii di Amadou Ba ma ngay jéem a dalal xelu ñii di waa société civile yi nga xam ne kon ñoom daanaka ba ñu génnee ci waxtaan woowule ah, yaakaar ju tas lañu ca gën a génne ba tey ci wàllum politique yeneen yéen i kaay ña nga ca xëy di xamal ne daanaka présidentielle 2024 doon Sénégal fi mu war njiitu réewam fukki weer ak ñeent donc moo ca des waaye nag li nga xam ne kon moo di candidature yi nga xam ne kon ñoom ñoo fas seen samp mooy ñi samp seen dënn bokk na ca Aminata Touré moom mbirum ñetteelu mandat moom kii di njiitu réew mi warul ko tudd benn warul sax xalaat di ko

IGE bi nga xam ne kon fi mu toll nii yéenekaay bi moo xëy di xamle rek ne Aminata Touré lañ ci tudd ne nag moom boppam daal am na leen loo xam ne kon da ko ca doon topp ginnaaw ba ñu ay luubal yoo xam ne kon def na ko ca yéenekaay bi xëy di rek ne ginnaaw bi mu yoree conseil économique social et environnemental ca ci tudd laas yéenekaay xëy di xamle rek ci benn lettre boo xam ne kon moom naka dañu koo jébal ki nga xam ne kon moom moo di njiitu réew mission bu doon nañ ko ca def ba tey yéenekaay bi xëy di xamal ne ci njiital Pape Ousmane Gueye moom nag doon def nañu gëstu ci Aminata Touré na mu yore woon kees googulee ba tey yéen kaay bi di xam la ne am na nag ay rëq-rëq yu bari yoo xam ne kon gis nañu ko ca ëpp na sax ñaari milliards ci sunu koppar yoo xam ne kon yéen kaay bi moo xëy di nettali ne loole nag ña ngi ko cay topp ak luñ bët kii di Aminata Touré yéen kaay bi xëy di xamal ne ay chèque yoo xam ne kon moom kii nga xam ne kon moom ma di mimi ci boppam nag gis nañ ci turam waaye tam le quotidien di nettali ne IGE rapport bi nga xam ne kon ñoom gis nañu ko ca loolee ëpp ëpp rek ñaari milliards sunu koppar Aminata Touré fan la ko dugal ak ndax moom loole ñu koy takkal moo ko def def waaw wala déet yéenekaay bi xëy di xamal ne kay coow topp na Mimi Aminata Touré ba tey yéenekaay bi di xam le rek ne eh, jamono ji kay ñi nga xam ne kon ñoo nekk ci langue politique gi mayete wuñ dara Walf Fadjri quotidien yi nga xam ne kon eh, moom ma ko ci tuumal nee na li nga xam ne kon moom lañu ko cay waxal amul lenn lu ca wér xëy na kay yàqub der ak rek bëgg eh, taqal li nga xam ne kon moom moo di yéene ji mu bëgg laaj réew mi loole dong lañ ciy jublu yéene bi ba tey xëy xam le ne Aminata Touré ne nag fi mu toll nii li nga xam kon moom lañ nettali mooy taxawaayu njiitu réew président lu jëm ci wàllu ko suufu si nga xam kon mooy moomeelu ko turu Sénégal doon rek li nga xam di domaine national bi anam bi ñu koy joxe ak bi nga xam ne danañ ko da ci ab koy faral loole la bëgg a wàññi ba tey leneen loo xam ne kon ña ko cay ba ma nga ca mbirum Aminata Touré ak yi nga xam ne kon moom nag ña ngi ko cay tudd su naataangoo yi xëy di xamal ne mi mi nee nii kay liñ ci bëgg rek mooy xoqatal ko te nag loolee moom du wéy bay boo rek ñu teg tegaat ko ci suuf ndax loolee ñu koy tudd amul lenn loo xam ne kon taqe na ci wala laale na ci Dakaractu point com ñu delluwaat ca ba tey ma nga ca li nga xam ne kon moom moo di mbirum kii nga xam ne kon moom moo di ñaari xale yu faatoon nañ leen foofule eh, ca Tiwaawan yéenekaay bi xëy di xamal rek ne eh, ki nga xam ne kon moom moo di benn soxna soo xam ne kon fanweer ak juróom benn at la am moom nag fi mu toll nii day ñu bëri dañoo njaaw njort ne loxoom seetu ca benn yoon yéenekaay bi xëy di xamal ne kay eh, jamono ji nag day ñu ngi cay bàyyi xel leneen loo xam ne kon ñu ngi cay bàyyi xel mooy ki nga xam jàngalekat la ca Ndiaffate la nu ko faat fii kii di Basirou Mbaye yéen kaay bi xëy nag di IGFM point sn ne kañu njort ne moo def lu ni mel dafa dawoon waaye nag fi mu toll ni teg nanu ko loxo sunu naataangoo xëy di a xamal rek ne jamono ji kay ñi nga xam ne ko ñoo day ay taskatu xibaar yoo xam xam ne kon taxawnoon tem la bëgg rekk mooy seen naataangool di Pape Alé nanu ko bàyyi lu ni mooy rek fas yéene na amal ab toogaanu ñaxtu ci buntu hôpital principal bu Ndakaaru mbokk yi nekk ngo dig dañuy lëg inchallah